وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وجدود توائب في البرايا كل بدر به الأنام صداء مبدع الخلق لما ألم تشفع شفاء نجل عبد إلهم نشئ بات منهم هاشم الجود طيب المعقاء ثم بادر البطاح عبد منام في وقصي إلى بنين نجباء مرتان كعبهم كذا قالوا أيو غالب ثم فهر القرماء مرتان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 di sëtu maam xalifatul xaaji Muhammad yàlla dogal ma mag ci sët yi di sëtu tim alxaaji Abdoulahi Niass yàlla dogal tim sëti alxaaji Abdoulahi Niass yi ma mag ci fii ba Medina ñu ngi nuyu ñëpp jiital ci bokk yi ak xarit yi ak taalibe yi fàttewuñ kenn Sénégal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ndokkeel ci liñ nga xam ne ñun ñëpp ku nekk war na cee mën a ndokkeel boppam. Hmm. ku nekk war na cee mën a boppam ndax rasulillahi ñëpp ñoo ko bokk yàlla moo ne wa ma arsalnaak wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow yónnent bi yónneewuma la ludul nga nekk jëmmi yërmande ñeel xeet bi xeet wi réeree la yàlla yebal yónnent bi mu gindi xeet dana ci dellusi fii nag ci Léona Niassène maam El Hadj Abdoulaye Niass ci liñ xam ci Saalum moo fi njëkk taxawal gàmm maam El Hadj Abdoulaye Niass ci liñ xam ci Saalum moo fi njëkk a dem Makka maam El Hadj Abdoulaye Niass ci liñ xam ci Saalum moo fi njëkk a dem Fass siyaari maam El Hadj Abdoulaye Niass liñ xam moo fi njëkk am ijaasatul itlaaq ijaasa goo xam ne mag ñi dañ daan am ijaasa mu xayyat moom maam alaaji jógee fii dem ba li olof di wax naan fa nag wa deexee ñu jox ko fa ijaasa itlaq ijaasa mooy lan mooy am nga ndigalu ku nekk bu ko matee sart yi mën nañ ko mën na mën nañ koo jox ndigal mu maye wirde maye muxaddam tam nam ko soobee ak nu man di doon maam alaaji moo ko fi njëkk am gàmm ak maam alaaji nag ñi ko xamee ci mbindam maam xalifatul haaji Muhammad muy taawo ndax maam alaaji nekk na fi lu yàgg mbindam maam xalifa ci la ñuy gàmm mu naan dégg sama mamat mi nee na boobu maam xalifa déggagul xalifa ndax xam si nga xam ne moo jiitu am na yu jiit jiitu sax waaye ci liñ njëkk a xam ci mbindam tagg yonent bi sallallahu alayhi mooy anta lil kaw ni bahjatun wa bahaa'u wa tajallat bi noorika zalmaa'u bi ko maam xalifa di wax ba téere bu mag boobu jeex 1914 la ko la ko taalif at moomu man sama waajur alaaji Babacar Niass ci la gane àdduna te maam alaaji mi ngi gane ci gane àdduna maam alaaji mi ngi mi ngi mi ngi jiitu 1922 kon 1914 ba 22 maam Alaaji ngi fi diggam moom mbindam maam Khalifa Niass dama ne 1914 xamsiye bi nga xam ne moom la ñuy jàng muy antalel kaw ni bahjatun wa bahaun wa tajallat bi nuurika zalmaaw anta lil karbi kaasifun mumqisun in atana bashau wa darraau kooku bi maam xalifa di bind maam alaaji ngi dund dara jotu ko 14 la ba 1922 maam alaaji door a na maam xalifa fukki at bu taalibe yi dajee ba ñëpp dajee mu ne dama bëgg ngeen bu ngeen ma gisul topp topp topp leen Mouhamed mi mooy maam xalifa maam bu boobaa dana ma leen jox ma jox leen Seexu Tijaan mu jox leen yónnante mu boole leen ak yàlla mu dugal leen xal jaani fukki at at mu mujj ma mu ne lu ma leen lu ma leen dénkoon ñaata yo dénkaan mi ñaata la ah ñi naan ñett juróomi at la ñi naan juróom ma man yéen a mën a fàtte dénk naa leen ko fukki at ren nag la xem ci at mooma la ma Abdoulaye Niass jiitu ma Abdoulaye Niass fi ñëw di samp gàmmu boobu gàmmu am na de waaye wuutee na ak niñ koy gàmmu boobu gàmmu ceddo yi ñoo ko yor ñoo naan gàmmu këwoon gàmmu xat jigi maar ceddo di fecc di tëgg lu nekk ñu di ko ci wax gàmmu baatab du baatab dafa baatab séeréer la wala baatab olof la waaye du baatu arab ba mam alaaji bañ commencé dañ daan gàmmoo mooy dañ daan woo ñi nga xam ne mokkal nañ alquran ñu géewal leen ñuy tari alquran ba fajar jot gàmmu ga jeex mam alaaji daan ne di topp nit te xamle woo ka ngay topp ñi koy topp xamuñ ko nañ soppi gàmmiñ ci la digalee maam xalifa mu bind ci Seydina Muhammad mu indil ñu nag ba yonent bi juddoogut yónneen yu indil ñu ba yonent bi juddoo lu mu fi ak lépp loo xam ne histoire yonent bi keroog ba mu juddoo ba bañ koy dugal ci bàmmeel ba bañ ko suulee ka ca mujj ca bàmmeel ba mooy Seydina ba Bilal moo ñëw jël moo ñëw jël mbattu ndox moo ko bis ca kaw xabru Seydina Muhammad bi sallallahu wa sallam damaa defee nit ki boo koy topp ba mu juddoogut ba ni mu ba niñ ko suul lépp nga wax ko mi ci téereem bi mu bind moo tax dañ ne ki ki ëpp lu mu bind tagg ko ci Seydina Muhammad mooy maam Khalifa Tulaaji Muhammad ku ëpp lu mu bind tey tagg ko Seydina Cheikh mooy maam Khalifa kon nag mun maam Khalifa moo fi wuutu baayam 1922 ba cinquante neuf maam Khalifa fi le premier mars cinquante neuf ci a génn àdduna doomu Alhaji Abdoulaye Khalifa kim tuddoo baayam uute ko 1959 ba 1991 suñu waajur Mawla Cheikh Alhaji Babacar wuutu ko 1991 ba mu jógee fa. alaaji Omar uutu ko ca jooje jamono ba 1900 euh, deux ba 2000 ba 2009 alaaji Ibrahima wuutu ko ba jógee fi ni Cheikh Ahmed Tidiane mi wuutu ko kon lii yàgg na ci kër gi yàgg nañ koo taxawee yàgg nañ koo bàyyi xel lan mooy sole si gàmm gàmmu mooy lan mooy màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy lii ñu fi wax ne yónnent fii la jaar fële ah kay bu dee gàmmu yàllaa ko njëkk a moo njëkk a gàmmul yónnent yàlla Yuusufa moo ko njëkk a indil histoire li yónnent yi xew ak la ca xew ak nañ commencé ak nam bindoo lépp yàlla moo ko ñu ko wax yónnent yàlla Yuusufa mooy nahnu naqusu alayka ahsanal qasasi bima awxaynaa ilayka hada alquran wa in kunta min qablihi la min adaalin la min asaafilin astagfirullah kon jëmm jooju yàlla mu njëkk a wax histoire gàmmu ci sóoratu yusufa ba sóoratu yusufa jeex indiwu ci beneen xiisa ah bu njëkk bi Seydi Ahmad Tijaan Chérif radiyallahu anhu bi mu nekkee Fass buñ ne tey la laytu xadir nañ ko màggal mu ne tëj leen jàkka ji fay leen sondeel yi ñu ne li tax maytu xadir yi yàlla moo ko xam nëbb ko waxu ko kenn te nit day wax lu ko wóor bu gàmmu jotee mu ne tijji leen sawiya bi taal leen lamp yi mu leer nañ ñu ne li tax mu ne màggal guddi yonent bi xam nañ ban bés la guddig weeru koor laytu xadar xamuñ ko ma tax yàlla ne inna anzalnaahu ñu ne ah ma ne fii laylatul xadr leer ñu ne waaw ma a wa ma adreka lu la xamal laylatul xadr ma ne xayrun min alfi sahrin kañ la kenn xamu da naan bii la bu nekkul ci bii waaye exact bii la kenn mënu ko am waaye mën nañu wax exact nag tey mooy gàmm kon nit bay topp day topp lu leer nañ am fu teg tànkam foo teg laylatul xadr ñu ne bi sàngam la koo ko wax rek wax na lu mu xamut dañ naan bu weer bu bu feeñee bi sàngam bi sàngam la bu feeñee bi sàngam bi sàngam la kon dara leeru ci waaye gàmm gi nag tey mooy gàmm gi moom lañ xam la te gàmm mu gën a foor luy weeru koor di màgg màgg ak laytul xadar bi màgg ànd ak lépp weeru gàmm moo ko gën a foor ok ah, lu mu ko gënee foor ndax laytul xadar xamuñ ko woon lu njëkk yónnent bi daawuñ ko màggal kenn xamu ko ko mu ne nañ ko seet ci weer wi ci nangam nangam wa xayru waaye gàmmu li tax mu foor moo ñu andil ci borom gàmmu moo ñu andil weer ko muy laytul xadr ba taxaw doon ak borom gàmmu muy Seydina Muhammad kenn du ko xam kon ala kulli xaalin nañ góorgóorlu ci gàmmu gi gàmmu gi nag mooy dalal gayet ñi toppatoo leen ñu lekk toppatoo leen ñu naan loolu rek doy na buñ ne woon tey la gàmm gi nañ dem ko rajo Axmed ñoom ñoo nu ñuy def mu ne ña nga rey ay nag ña nga togg ay caab ña nga def nii na nga def na li lañ cey jëlee ci téyaabo rek doy na gàmm ndax Cheikh Oumar daf ne Cheikh Oumar Fuuti daf ne wa luxmatun fi jaw fi jaayi afdalu min binna i al fi jaamii Cheikh Oumar Fuuti daf ne benn tib ci ñam nga jox ko ku yàlla bind àggul sax ci nit mu lekk ko moo gën nga tabax junni juma ah rëy de mu ne waa ma firil leen ko ah, mu ne mu ne jumaa ji yaa ko tu dee ko yàlla xamuñ yàlla nangu na ko mu déet xamuñ alal jëng ko tabaxee lewu na am déet mu ne nag waaye ka nga jox mu lekk tabax ak yàlla la yàlla moo ko bind boo ko joxee réparé ko boo ko jur bu deexee yaa ko daane kon tabax ak yàlla nga yëkkati ko moo gën caw ca tabaxa bopp nga yëkkatiko ko liñ ci mën a déggee daal nit ki daal boo ko joxee mu suur lekkee mu suur day dellu ci alxuraan yàlla nee na ku rey benn nit mel nga ne rey ga àdduna yëpp ku dundal benn nit mel nga dundal nga àdduna yëpp te nit ki boo ko joxee mu lekk dundal nga ko boo ko bàyyee mu xiif amulum lekk rey nga ko ku fi jëloon benn nit yeew ko fii lekkul naanul ba ëllëg bu dee yaa rek am nañ ci benn xissa boo xam ne yónent moo ñu ko nettali ca jamono yónent yàlla musa dafa benn jigéen boo xam ne guddeem yëpp daf koy naafi ba bëccëg yëpp daf koy woor mu dem nag woor ba bëccëg mu dem ca marché ba jëndi jën indi war ko togg dogee benn muus jaar ca gannaaw lekk jën mu ñëw war a ndogu gis muus gis muus ma lekk na jën ba muy wër rëbb muus mi ba gis ko jàpp muus mi yeew muus mi di jooy guddi ak bëccëg lekkut di jooy guddi ak bëccëg lekkut naanut ba muus ma dee ndaw sa xëy benn bés dee yàlla na ko coppet yóbbu safar te guddeem daf ko daan woor na ba guddeem yëpp bëccëgam yëpp daf ko daan naafila am na benn saar ci alxuraan boo bëggee sa niw guñ suul nga xam mi ngi ci jàmm walla nekku ci jàmm boo ko jàngee bu guddi jotee rek yàlla woon na ko gis ko nag mu ne ko yow loolu indi lii ak sa diinu ju bari ci ah, man ko muus ma ma jàppoon yeew ko lekkul naanut ba mu dee sama borom ne ko yaa yërëmul sama muus mi kon du ma la yërëm ndax maa ko bind muus maa ko bind mooy ndiwaat beneen affaire benn jigéen boo xam ne yàlla na ma yàlla baal dafa moomoon boppam fu ko neex yendu fu ko neex fanaan mu am fu dem nag ah nekk ca la ko neex waññee ko fekk benn teen li ñuy wax sayaan mi ni teen la teen bu gàtt la mën ngaa dugg jël sa ndox génn moo fa boo fekk fa benn xaj xaj baa nga tëdd di jalkat ba lam yu génn ndaw sa dugg faj soxlaam naan xëy na lu mu def yëpp def na ko mu xool xaj bi ba mu yàgg mu ne hee kii de dafa mar fekk ndaw si mi ngi sol ay dàll dàll sang lañ ko dox ñu naan ko bot man ñoo ko dox sang dañ ko doon liggéey ci der mu dugg. duy bi ba mu fees ndox mu taajal ko xaj bi xaj bi naan ba mar ndaw sa dem na xaj ba dem na ndaw sa xëy rek benn mu dee ñu ne ah, ki gënoon moom boppam ki gënoon doy waar lu nekk lu bon lu ne ñu takkal ko aji gis gis ko mu nekk aljaane lëmbe lu la fi indi mu ne ko yàlla ci ban façon mu ah, man de ab ab xajam laa may mu naan ndax xaj lu yàlla bind lu nekk rek yàlla ko bind kenn bind moom laa may mu ndox mu naan mu ne sama jaam bi yërëm nga ko mu ndox ma naan kaay kaay mu yóbbu laal jànn nga lekk te naan kon yëf kenn xamul fu mu nekk nañ def lu baax ndax xaj rek yonent yàlla nuuxul mos mu romb benn xaj xaj ba doy waar lool mu gëstu ndaw xaj bu ñaaw xaj ba tontu ko ne ko ma bind sama bopp ndax maa bind sama bopp yonent yàlla nuuhun di sant yàlla di tuub di jégalu moo tax sóoratu nuuhan ba ñu ngi ko tuddee yaskur mooy tudd yàlla mooy fu toll di sant yàlla ndax yàlla jégal ko gàmmun dañ tagg yàlla dañ sikkar dañ jàng alxuraan dañ jàng salaatu faati dañ toog nag di indi histoire Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maam Khalifa ci mbindam nee na fa bi taxdimihi amaanatun bi salaam wa busra a anbaaw mu ne bokk na ci guddi màggal guddi yónnante bi rek am nga assurance yow mi ko doon màggal ak loo ko di màggalee am nga assurance ren ba déwén ci yàlla nag yow ba assuré sa auto touriste koo xam ne ah la assuré man ku ma ku ma ku ma yàq sama oto laa yow jaam bi nga am assurance touriste ci yàlla. kon nañ ko màggal euh, ñu góorgóorlu wax ju du bari bëggoon naa mu gën a kii mën na sax mu gën a continuer waaye daal mag ñëpp ñi ngi boolem kër goo gis ñu daan maggal yonent bi daal kër ga jartu laaj boo ko jub rek ñu ne danga xam fee la boo jub lew nañu seen ñu ne sooroon yële da mooy lew na boo fi mës a jóg bu dee Medina Baye ñu ne sooroon yële mooy Medina Baye bu dee Njaasaan ñu ne sooroor yëre la bu dee Tiwaawan ñu ne sooroor yëre la bu dee Tuubaa ñu ne sooroor la lépp nag màggal yonent bi la maam xalifa bët ki dem dañuy déglu burda bi mu wax wax ju doy waar dafa ne moom ci jeexlu burda bi mu ne moom yaakaarul ci jëf ju baax ju mu jëf dara pour yàlla ko fay ko góol mu ne moom lenn rek la yaakaar mooy tagg bi mu tagg yonent asakaam yaakaaru ko julleem yaakaaru ko def lu baax xam yaakaaru ko ah, dana ca jot waaye dafa lay xamal ne lu dul tagg yónent bi nekku ci lu dul tagg yónent bi tagg yónent rek boo mën tagg yónent bi nga sopp ko boo mën ta sopp ko bay jooy boo mën jooy nga jooy jooy li may jeexale Seyna Omar dafa toog ak yónent bi sallallahu alayhi wa ne ko xa tadri man ana yaa Omar ndax man xam nga ma Omar xam nga ma man Omar na teg mu ne ko xanaa xamoo ne weer wii leer gi ci man la ko yàlla bind jant bi lu muy leer sama leer ci la ko yàlla bind àjjana lu muy neex neex sama leer gi la ko yàlla bind safara lu muy métti sama leer gi la ko bind a tadri man ana yaa Omar mu de na ko Omar ndax sopp nga mu ne ne ko sama jëmm ji ak sa jëmm ji la sama jëmm ji ndey bu la gënal ma ne ko yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal ku man waa sama jëmm ji attention de waaw ah, sama jëmm ji nag na ne ko Omar ma ne ma ne koo jë mën ñoo jëriñ ci man lu dul ji ak lépp lu yàlla bind ku dul man maa la ko gënal boo ngay jëriñ ci man. kon nañ nan topp yonent bi nañ ànd moom yal na yàlla dimbale yal na yàlla taxawu.